délégation ngeen ñëw fekk ko fii teral ko ci fula ndax nee na loolu mooy dëgg tama ji nee na ngeen ñëw teral ko yéen ñooñu nga xam képp koo xam di Cheikh Gueye moo la ñor ak ku ànd ak Cheikh Gueye rek tama ji nee na nga ñëw fii teral ko ak lan Papa Nderi ci ndam li nga xam ne am nañu ko bu nekk suñu ndam ñun ñëpp ndax euh, ñun ñëpp ñoo àndandoo woon di xeex depuis des années tey jii ñu am ndam loolu kon duñu ci def lu dul kontaan ci bu nekk ndam loo xam ne nii nag yaakaar naa ne ku gis élection yi ni mu demee bàcc mi ni mu mettee nga xam ne ay jii Sénégal amoon nañ lu ñu metti góor jigéen mat ndaw suñu yaay yi suñu papa yi ñëpp amoon nañ lu leen metti mais malgré métit boobu yëpp dañu ko denc des années di dund ci souffrance di dund ci métit ñu ñuy jaay doole ci suñum réew ñu mujj fi nekk ay étranger xat fi lool ay jii jeunesse boobu ñoo ànd ak seeni yaay seeni papa ba démb bu nekk le 24 mars ñu jug wane seen naqar naqar boobu nag boo tax tey jii ñu dajee fi ndax naqar boobu dafa jug mbégte mbégte bi mooy dañoo àndoon nag suñu président Bassirou Diomaye fay mu nekk nit boo xam ne nii nag yaakaar naa ne buñ la waxee parcours am luñ la wax ci moom wóor laa bett. non kii man directement directement. ndax ku nekk inspecteur des impôts et génne ENA yaakaar naa ne buñ la waxee mënul yor am réew ndax dafa nekk gone amul expérience war na la jaaxal ndax concours ENA moo xamal leen ci tuuti nekk na concours boo xam ne nii poste yi ña koy xëccoo bari na lool bari na ci candidat yi ñu ko tànte te réussir ñu ko kon nag. bu ñu amee président bu ci jaar génn ca nekk ca kàngam kon yaakaar naa ne mbégte la ci ñun ñi nga xam ne ñooy safoo di tiitaroo président Ousmane Sonko di safoo di tiitaroo Pastef te yaakaar naa ne tamit du Bassirou Diomaye kese Faye kese moom moo nekk benn cadre ci biir Pastef les patriotes cadre yi bëri nañu ci lool kon nañu xam ne ñun ñii ànd tey jii ñun ñi and tay ji deug mo ñu ñor te ci deug bobu nak dañ ko tek ci xam-xam ndax ay xam-xam borom xam-xam lañu andal àndal te boromu xam-xam yoy man na ci cité kenn tay ji mu nekk ni en face de moi un Cheikh Gueye Cheikh bi également di lay bay di nit boo xam ne nit bu modeste la aussi am na xam-xam lool machallah te yéen ñi ñëpp am na ñoo xam ne ne xamuñu ko mais xam na ne ko am respect la te yaakaar naa ne xam-xam boo amee am respect rek yow tamit mën ngaa jiitam réew kon nañu xam ne Bassirou Diomaye Faye dafa nekkoon lu choix rek nekk kenn ku ci ne ci biir Pastef nga bokk caamen nga mu nekk foo manti bokk xamal na ñun projet la ñu projet boobu Ousmane Sonko moo ko porté woon mu dem yàlla def ñu galgal ko mu jël Bassirou Diomaye Faye jiital ko mais tey jii mënoon na jiital Cheikh Gueye nii mënoon na jiital keneen ak keneen ndax projet boobu moom mooy nit ñi ci lañ ko wékk mais wékkuñu ko ci benn nit kese. léegi nag dafa am loo xam ne nii il faut ñu leeral ko il faut ñu wax leen ko mooy ni. suñu président bi ñu élire démb muy Bassirou Diomaye Faye le vingt cinq mars moo nekk anniversaire am rek dama bëgg ñu fi nekk ñëpp ñu souhaiter Bassirou Diomaye Faye joyeux anniversaire kon dama bëgg a dégg ñëpp ne happy birthday monsieur le président eh wax leen ci loolu ca kaw na ko ñëpp dégg happy birthday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 birthday to you. merci beaucoup est ce que xam ngeen ne yéen. yaa ngeen jëf. li ma neex ci xewu démb bi mooy. vous da ngeen a sàcc yéen waa Jomaay. bàyyi leen élection yi ngeen di sàcc. ñëpp yaakaar na waa APR ñooy sàcc fekk waa Jomaay ñooy sàcc. lii am na lu ci rax. te ci nag mooy que ni dañu ne la nouvelle génération 2000 amuñu carte d'identité mais man naa wax ne nouvelle génération bi tey bokk nañu ci lu élire Diomaye à la tête de ce pays. looy looy kon nag du ñu def lu dul jublu ci li nga xam ne moo ñu fi indi. mooy que ni tey jii bu ñu nee élection wax campagne électorale bu ñu nee wax campagne électorale. wax ay militant tey jii Pastef Thiamène Kayor buñ koy wax dañuy bind Thiamène avec un grand T mu nekk Thiamène commune ay dëkk ëmb ko bu ci mel ne Belgarki ana waa Belgarki eh, may leen loxo waa Belgarki dégguma dara de sàccu bu baax waa Belgarki ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ndax gis nañ ne indi ngeen seen pierre à l'édifice mooy que ni tey jii xew bi du waaye caay ngeen ci kon jaaraama yéen waaye également am nañu ñoo xam ne nii buñ leen di wax dañuy am fierté dañuy am fierté ndax tey jii dafa am koo ne nii def caameen kayoor fu mu àgg kooku noonu du doomu caameen su ma ko waxee mooy yeewoowul caameen mais tey jii dafay jóge caameen dox dem ay kilomètres du ñu ko jox fukki dërëm muy teewul caameen bii mu dëkk te mu dëkk Kër Ibrahima. Ibrahima Thiam fii laa la soxla. jàmbaari Pastef. yow il va falloir que caamen yëpp xam li ngir caamen ba. tàcc ko. yàlla jaay noonu. macha allah. c' est le grand Ibrahima Thiam. waaw. nekk directeur école Kër Mom Kër Basile. mais amul sax temps. ndax chaque jour mi ngi à la solde de caamen. kon bi ñu def lu jël kàddu gi rek. jox ko Ibrahima Thiam. eh DJ DJ. DJ mayal ma benn son bu ndaw rek Ibrahima Ibrahima bala ngaa wax Ibrahima Ibrahima foog nga wane sa ko laalee dinañ ko dóor soo ko laalee merci beaucoup. c'est bon ah oh am na solo xam naa. a baax rek. lu la bett mën la parce que c'était pas prévu.

Aliou Khoudia Fall l'infatigable Aliou Khoudia Fall dama bëgg ngeen tàccul ma ko. loxo yi waay. dama bëgg ngeen tàccul ma l'apprenti sociologue. le corneau. Bismillah kaay nii. li tax ma ne ko kaay nii. mooy ki nga xamante si. c'est l'incarnation du désintéressement. maanaam ci wolof ki nga xam li ñuy wax don de soi pour la patrie jëppal sa bopp ngir sa réew baax koo koy Aliou Khoudia Fall. loxo yi waaye tàcc leen ma oh xam ne. Oh. bu biy tàng. nit ñi ñëw nekk un jeune militant. nekk militant de dernière heure. dafa ñëw nañu fii militant de dernière heure amu fi militant de première amu fi. li fi am mooy ku taxaw am ay principe am ay conviction te mënoo vivre. en deçà de ses convictions et de ses principes koo koy Aliou Koungheul façon tentative, vous ne façon tentative bu compromission je ne dis pas compromis mais je dis bien compromission buñ ko ne Pastef ki nga xam ne tax ne 2019 le président Ousmane Sonko di chamel. Dakar mais moi, le tout bu mu ne chamel. kenn du ko tuddul grand cheikh ñu ngi woon feneen muy metti muy muñ muy metti muy muñ waaye mu xam ne yoonu mbaax boo gis rek dëkk boo gis la war faa jëm yoon woowee dafay bëri ay dëkk bëri xaaxaam Aliou ñeme foncé Aliou fonce Aliou foncer Aliou foncer ak ci leen loolu waaye kon kii su may wax ci moom dama doyal su ma ñëwee caamel am naa fii mbokk de fii samay mbokk rek ñoo fi nekk su ma waxee mbokk nag mooy ci deret ndax ci aada dafa am lu ñuy waxee mbokk waaye ci suñu diine ñun julli ñëpp ay mbokk lañu mais ci mbokki aada dama ko fee bari la ustaaz laa mais xam na li may wax mais su ma ñëwee seen lay laay parce que bi ma ñëwee ci Pastef non seulement daf ma wóor ne ma Ibrahima ah fépp foo xam ne parti bi soxla na ñu fa soo amee sa temps demal. waaye bu ma ko waxee dama koy booleeg ñi ma fi fekk ñëpp siisuñu ñu beddiwuñu ñu boddiwuñu ñu non plus dañu cee yaatal te loolu mooy Pastef kon xam leen ni kii ku ginnaawam nooy la yàlla xam na ne boo àndee ki yar ànd ak i teggin mën nga boot ci ginnaawam. képp ku ñëw loolu waaye wala nga am déggu kanam kooku c'est pas facile pour boot la kon Aliou. képp ku ñëw pour mën a boot ci ginnaawam ànd ak yar ak teggin amoo nit kuy toleeg sa kanam wallahi alazim pare na pour boole kooku Aliou Khoudia Fall. loolu neex na. kooku mooy le coordonnateur de la section communale de de Dieya Thiamène ki nga xam ne moo rayante ba parti bi yaatu grand cheikh. 2021 grand cheikh nee toog tey bu ñu demee ba Thiamène donte doon na ko ndamoo dañuy ñaan yàlla kàddoom egg foo xamante ni si dina romb dëkk bi ba Sénégal yëpp li ci jariñ kii ci la bokk moo ne ko grand demoo fenn ñun ñooy porte sa candidature grand cheikh moom it dama lay ziar parce que xëccoo woo ñun ndaw ñi ñoo ne cheikh yaa ñu doy sa loxo set na mën ngaa bokk ak ku ñu ne la grand kaay comme bi xat na xat boo xamante ni sii ku tibbul lekkal sa bopp keneen du la tibbal jox di ngay lekk muy réew mi loolu lañ ko moole woon grand cheikh kaay allah nga nekk guddi gi nga xam ne ëllëg da ngay tibb andil caamen te bu ñu waxee Thiamène c'est fier de la commune à tous les villages environnants man su ma dee sonn ci loolu c'est parce que ku yemale la gëm naa ne bu ëllëgee bu ko Thiamène yore wallahi trésor ngeen yore wallahi trésor ngeen yore wallahi trésor la arrondissement bi yore bi grand chef gëm naa ne ëllëg du ma ne c'est une personne forte un leader fort mais c'est un leader charismatique il a du charisme grand chef te loolu lépp Aliou Khoudia moo ñëw ànd ak ñoom Matar ak ñu nu fekk ñëpp suñ ko waxee wax nañ ñëpp kon ñu ngi guddal waaye di gi daf maa bett xam nga rek ñun li ñu bëgg mooy tapis dans l'ombre parce que li ñuy def defuñu ko kenn suñu bopp lañ koy defal réew mee ñu jur réew mee ñu yar réew mee ñu jàngal mënuñu lu dul lépp lu ñu am as tuuti xam-xam ñu delloo ko waa réew

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pourquoi j'ai dit Parce que j'avais dit, grand cher, qui savent les vidéos qui sont bien connues dans le temps. Dama ne woon changement ala kulli xaal luy am la. Kaamil waru cee des ginnaaw ci changement boobu. Kaamil waru cee des ginnaaw te tey des ci ginnaaw parce que waxoon naa la amul tiit amul ragal yàlla rek moo fi ne koo fi yaakaar yàlla la yaakaar. wallahi te waaye Thiamène nañu képp suñuy gëm kii la fii le président Ousmane Sonko joxañ kii la kii la joxoon kii mooy président Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooy moom muy Aliou Khoudia Fall kii mooy Diomaye Diomaye mooy moom kon téye ngir yàlla téye ngir yàlla téye ngir commune moom la fi yàlla teg ku ko ku nangu moom la yàlla teg ku ko nangul moom la yàlla teg te lépp tey yàlla mi ngi nii liggéey rek lay fay wallahi du fay wax bàyyi jëf yow nag yow moom bokkoo ci ñi nga xamante ni dañ ne de Ousmane Sonko intéressé wu leen yow personne Ousmane Sonko moo intéressé dégg nañ fii ay leader wax yow doo genre yooyu parce que da ngaa xam ne officiellement vous représentez Ousmane Sonko ici à Diamé officiellement yaa fi toogal Pastef officiellement bu Pastef doon kon naxaate gi dafa doy kon caaneen caaxaan yi dafa doy ñun bu ñuy jóge suñu dëkk di tay la suñu bakkan bi tay la suñu poste yi ñu nekk garantie ak keneen ñuy recevoir ay menaces di recevoir xam na li ñuy wax ba muy ay RG du ñu menacer mu ñuy woo naa ñu def leen attention ñu ne xeex bi Ousmane Sonko du ñu gën a gore mun na perte liggéeyam mënut a am ñu dee mënut a am ñuy mutilé mënut a am ñu place ngir Sénégal bu baax man Ibrahima Dia wala Aliou ku ñu ñuy ragal moo fi nekk. te benn dëgg rek moo am borom kun fa yàqun moo ko moom keneen mënu ko fee am Aliou Khoudia ci dëgg googu la taxaw keneen ku fi nekk di leneen da ngay ay caaxaan moo tax ñuy fanaan àll di guddee àll di def leneen kon fi ñuy jeexale rek nañ ci waaye sunu président bés bu dellu si moo neex sunu baat nag neexul. ndax campagne yi jàpp nañu sonn nañu ci wax ji sonn nañu ci sensibilisation waaye il faut ñu waay kon bés bu dellu si moo ne bés bu dellu si moo bés bu dellu si moo bés bu dellu si moo Bés bu dellu si moo bés bu dellu si moo Без modelos Simone, Jehová. Без modelos Simone. Cooperative Channel maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk sa tur ak sa sant bon man la Dame Nia maa ngi taxawal Alassane Ba moom mooy président jeunesse waa Belgaïde yëpp te moo fa taxawal waa Pastef ñoo ngi leen di sant di waxe si cadre Alassane Ba nee na mu ngi nuyu ñëpp moo ngi gërëm ñëpp di leen xamal ne yéen waa Thiamène Alassane nee liggéey bi moo ngi soog a commencé nee liggéey bi tey lay soog a commencé tey lay soog a door tey leen di gën a leen di gën a nag li ko jar moo ko changement la ñu woote kon changement war a am te depuis mille neuf cent soixante ba léegi paa yi yoroon réew ko yaakaar naa am na pays yu yoo xam si ni Sénégal moo leen jiitoo ñooñu pétrole dañ leen am développé seen dëkk donc nag ñun bu ñu amee jeunesse bu conscient tranquille am ku mel ne Cheikh Gueye mii mu président kon dañ ko war a gën a jàppale yaakaar naa moom xam ne bu baax a baax a baax liy dox si dëkk bi alsaan nag moom nee na amul seen fay mais nee na dina gën a waxtaan ak waa dëkk bi ñu gën a nekkaat benn bopp ba xam ne bu ngeen fa débattee cent pour cent ngeen di gagné foofu noonu cent pour cent yëpp nag incha allah bi lañ koy xam boobu boobaa moom boobu yi gën a métti foofu sax xam nga doomu bàcc yi méttoon na na wante yàggul mais élection commune bi boobu gën a métti kon nag Cheikh Alassane na moom yow lay déglu loo wax rek loolu lay def loo moom waxul loolu te yaakaar naa moom tamit li wax jeunesse su Gueule Tapée bépp loolu la ñuy def. maa ngi àndal nag ku mel ne Fama Mbodj yaakaar naa yaakaar naa moom tamit moom Alassane yëngu si liggéey bi moom boo gisul Alassane rek gis nga ko gis nga ko nga ci wetam waaw kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba wax si mbooloo nag laa mënul mais am ngeen jërëjëf jaa ngeen jëf. donc koo gis ceeb kon nag ñoo lay sant di la gërëm damaa mën a wut nag wax ah waa Mbacke Bari itam boo gisee lii ñoom ñi ñoo war waaye nag dama sant gërëm leen parce que askan sama rakk la loo tax sama doom la xam naa ñoom ñëpp samay doom la comme buñ fi nekkee am na loolu nag waruma waaye nag kàddu gi dama ko mënut a bañ a leen di sant nag di leen gërëm barkeb Serigne Touba yàlla na fu mu bëgg a àgg yàlla nañ fa egg dara yi Serigne Touba merci. asalaamaaleykum waa Caaber Kajoor Malenlyset الثرثم بلين مصر تونا بلين خمالنا خيخ بياد الله دمت وانا الله وايا تاي دفا ملا لب جاهنا avant tout maa ngi jaale ñi xam na si ñoo gaañu di masajoo ni ñu xam ne si ñoo gaañu la si xeex bi parce que ñoom ñoo waral lépp tey bu ñëwee fii si xeex ba dee fuute loolu moo waral lii kon képp koo xam ne citoyen la dëkk Thiamène la dëkk li wër Thiamène yëpp war naa maa def loolu sa bopp te xam ne yan bi du kenn rek moom moo koy yanu ñëpp doo ko mën a yanu pour mu aay si ñëpp du ñëpp ndax borom da bu leen ma ndax gëm sa bop rek moom mo tax nga jall wa sa ma ngi ñaanal ñëpp yalla na fay jàll. waaw mo mo muux ngeen daal ci ma leen bu baaxa baaxa baaxa baax yaakar na ne mo mo mbàccum gerte mi mom kenn demul mu dess dañ leen a dooro dooro dooro dooro ba ñu bëgg a ta ci leen loolu. xam si nak nag coono bànneex la. ko ko ngi Kapoor bëggoon a taxaw rek suñu Sénégal kay ñu jubbanti ko te tey ay preuve à l'appui ndaxte ki fi nekkoon xamal nañ ko ne ay kàddu moo la foloon mais biñ demee ba benn moment gis nañ ne Sénégal ñu ngi ci yoonu suuxee jeunes yi nga ñu ngi doon taxaw na naan leen amu leen ay carte d'identité ñooñu taxaw waat nañ tey fipp pour jëlee fi ñi fi nekkoon pour bëgg fee samp ñeneen ñoo am nañ ci ñoom yaakaar te yàlla bu yaakaar jooju tas di sant bu baax nag euh, suñu copain suñu frère suñu ami suñu lépp Aliou Khoudia Fall wax dëgg yàlla lu ne laa ko yàq lu ne laay wax ak moom mais lu wax rek automatiquement danaan booy maa ngi jégalu ne kooku nag mooy leader leader doo ñëw di wax ak moom mu lay lamin non non wax ak moom mu jégalu ngeen waxtaanaan ba trouver consensus di nuyu aussi suñu grand cheikh l'infatigable wax dëgg yàlla moom it chapeau à lui wax dëgg yàlla du matin au soir wax dëgg yàlla dañuy déggante ak moom muy jëf-jëf joo xam ne si la wax dëgg yàlla amuñu lenn luñ ci naatable kon di wax ne liggéey bi mi ngi doog a tàmbali amaana moom moo nag taxawoon nañ benn moment am fuñ taxawoon mais biñ demee ba jeunesse bi yeewu mais il est temps ñu ñu fippu ñu def changement démb am nañ ci preuve ndax démb màcc màcc bi mu tàmbalee comme ni ñu koy waxee am na ay représentant yoo xam fa woon wallahi gës bu ne gis nga ak wax bu ne dégg nga ndax affaire yi ñu doon ñëwee métti na suñu frère Lamine Gueye mi ngi fii biir wax dëgg yàlla bi wax ne waa parce que ñoom it lu seen i carte ah il faut il la vérité ñoom seen i carte la ñor falu carte moo la falu mais du wax kon nag il fallait que waa a am benn relation bi ak waa Mof Mof jéem a duggante ak waa Mof Mof. man am personne je man man ne man muxumu amoo fa dara caamil la am dara ndax caamil fa la sama teranga nekk laa xëy ba ngoon dama tëddi muxumux yow xëy ñu bisi xëy si waat moom fi ne kon nag lu am man muxumux laa koy yóbbu te lu ma am muxumux laa fa nekk ñun ñi fa nekk ñu présenté ko passif kon ñun ñoo xam ne moo kale ya fa nekk di waxtaan ak ñoom Cheikh doy ma ci seede léegi ci timis am na lu ñuy échange de maag moom amaana moom xamul la fay gisul la fa man maa fa kon nag nga la waaye lu dama am fu ma ko teg moo tax bare naa pour xeex Pastef am fa benn base boo ne si ne musul am moom moom voilà ci loolu a ma ci mën a jàppale yéen waa Thiamène ndaxte moom aw ma lu may fay kenn nit ñi gis ba mu doy leen ñu kon nag ngalawaay Cheikh na leen takkuwaat léegi du ñu liggéey lii ñu weesu passé na ko gas ba mu xóot ñu suul ko xool li suñ kanam ndaxte y a d'autres choses ko war a ba loolu dañ cee war a dem jusqu'au bout te dañ ko war a finir ci finir boo xam comme ni ñu finiré fii finir finition bu la war a am kon nag ngelawaay muy caamee muy bel muy ndaanaado muy feneen ak feneen ci ne jox ko wàccuwaay bi nga xam moom la su a leneen li ko bëgg mu yomb leen dama wax Aliou Ngoudia Fall nee naa ko man du ma nekk benn benn citoyen boo xam ne da ngay toog dañu ñëw moo ko la ñëkkati naa tout sauf ça loolu du ko accordé kenn man dañu ànd di rooti di ànd di sotti donc loolu mooy sama objectif maa ngi jégalu bu baax ci yi xëy na maa wax maa tax ma lii mais xëy na mën naa a maa ngi jégalu bu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di masawu coono ñëpp wax dëgg yàlla gars yi sonn soo jot a gis yàlla nañu ko yàlla defal ay xéwal yu sawal baawaat ba ne suñu kanam ñu gañe ko incha allahu rabbi. suñu mbokk yi rek ñu def ambiance ba ci kanam bu ko defee ñu continuer discours yi jaa ngeen jëf. ndeysaan Mbaye Sall barki bi voilà salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum mbooloo mi dégguma leen de salaamaaleykum mbooloo mi waaw kay merci waaw di wax alhamdulilahi rabbil alamin rek ba ñu mënee teew fii di mën a yëkkati kàddu ñuy jiital ci kàddu yi rek di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne nii tey jaral na leen ñu bàyyi seeni lal ñoo tey fii teew te yaakaar comme ni ñu koy waxee la ko jaro jar suñu président Diomaye moo ko jar suñu président Ousmane Sonko moko jar le parti Pastef moko jar suñu grand chef moo ko jar waaye nag l'incontournable l'infatigable suñu coordinateur communal Aliou badra Aliou Koundiack Fall may doore sama cadeau rek di remercier kep ko xamante ni tay tew na fi waye kep ko xamante ni tay participer nga ci li nga xamante ni moy victoire éclatante bi ñu am tay muy remporter élection présidentielle yi nga xam ne amoon na démb dimanche du 24 mars. kon képp koo xamante ne tey yëkkati nga sa xob jëbbal ko kii di président Diomaye ba mu jël ndam li au premier tour kooku ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal boo xamante ne nii am na fu mu waaye amul fu mu waaye nag di jaajëfal waa Thiamène yëpp su ma waxee Thiamène nag dans sa globalité laa wax bàyyiwuma fenn ndax bu ñu limee dañuy bu ñu waaye Thiamène rek cat ba cat. de l'est à l'ouest du nord au sud bàyyiwuñu kenn ñu ngi jaajëfal population Thiamène yëpp gis nañu seen engagement gis nañ seen motivation gis nañ aussi li mu leen jaral tey moo waral teewaay bi nii nga xam ne dañ leen di sargal di leen dégloo njukkal li ñu wax nag jërëjëf xëy na gudd waaye bu deful dara du ko dégg su ngeen deful woon lu ko jar kon tey du ñu dajewaat fii ba tey mën a teewal teewaay bu rafet bi loolu dëgg la kon jaajëfal kenn ku nekk ci boppam na jaajëfalaat boppam waaw muy wax ne nag liggéey bi day doog a door waaw li ñu doon yóbbu xëy na jot na ko waaye nag li ci kanam ah ndax sas la nag te sas la boo xamante ne ni diis na trop ndax li ñuy yaakaar tey wala lu bëree bëri yaakaaroon na tey bis bu réew demee ba tàbbi ci suñuy loxo ñii di jafe-jafe ñii di injustice dund gu metti gi ñoo ko doon dund dafay jeex. te loolu nag du ay waxi kese moom moo koy def lu luñ futteeku takkoonu liggéey Sénégal dem ca kanam loolu rek man nag kàddu yi maa ngi jégalu mënoon a sax bañ a gudd ndax ñi nga xamante nii jiw kàddu gi yaakaar naa ne résumé nañu lépp wax moom li nga xamante ne nii mooy mais du ñu fàtte ndax ñun dañu am lenn rek muy un dénominateur commun bu ñu am ñun ginnaaw la Sénégal mooy caameen bi nga xam ne nii moo ñu jub moo ñu nàmpal moo ñu yar moo ñu jàngal. moom rek la ñu amoon la ñuy sagoo amuñu feneen looluy dëgg kon moom moo ñu jaral lépp loo xamante ni engagement la am nañ ko motivation la ñu am ko caamee rek moo ñu ko jaral parce que bu ñu sañoon caamee bu des ginnaaw caamee rek ni nii neexul naqari na la jàppal ne yow ci ah liggéey la laaj comme ñu ngi wax rek nekk na takkuwoon yu bare bare bare yu nekk ci suñu kanam bu ñu ne gagné nañu élection yi rek ñu dem tëdd di nelaw ne alhamdulilahi rabbil alamin déedéet am na ci suñu kanam yu ëpp doole foofu kon nañu ko waajal li ñu koy waajale rek mooy comme ni ñu defoon démb dañu doon wax naan xale yi dañ ñoo leen topp te xale yi amuñu ay carte d'identité jël leen xale yi ñu ngi jël mag yi léegi te boobu mag yi dañoo xam li ñu xam rek noppi ba bis ba jor rek waaw ñu ñëw na xalé yi fu ngeen nekk fa lañ nekk mais yaakaar naa ki di yaay ki di papa bu seetaan doomam mukk kon yaakar naa ne ñoom dañoo xamoon li ñu xam rek nopp mais suñu jabo bii mo ñu gënal ñu am ndax ëllëg ñu rek ñoo ñu taxaw ci loolu képp fu ñu ne rek ñu dañu fay and ak ñoom ba mu sax sàpp te dégg wone nopp comme ni ko paate doon waxe sànq mbacci yi yaakar yaakaar naa ne foo yaakaar ne fa la gën a rek amna bu ko raw kon ñi ngi jaajé jaajëfal di gàcce ngalaamaal population Sénégal bi yëpp damay jeexal samay kàddu nag di fàttali rek lenn ci li ñu le président Ousmane Sonko déggoon muy discours bu mu defoon doon ci wax waaye tamit am ci benn pàcc boo xam ne daf ko jagleeloon ñi nga xam te ni man ndaw bi ma jëlee kàddu wax rek ndaw ma tax di wax leneen ndaw mooy mooy yaakaaru réew kon man dama dem bàyyi ginnaaw ndaw bi mu leen di woowaat rek ñu ne ñu gën a fagaru ñu gën a tàpp Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon. donc nous ay les yoo xam il est présent au moment miné par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents. englouti dans les océans ou le désert à la recherche désespéré de de de d'un C'est donc, À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie. L'idéal d'une société juste, dont les richesses et les ressources seront partagées équitablement. Dont les richesses et les ressources seront partagées équitablement aux frères et sœurs africains. Justement, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, Partout en Afrique, partout en Afrique, doit souffler un vent nouveau, un vent de liberté, un pas de démocratie, un pas de souveraineté. Ce 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. le président Ousmane Sonko kon dañ leen doon fàttaliwaat rek kàddu yooyu nga xam ne suñu président yëkkati woon na ko dégg ko ñi nga xamante ne nii mooy ndaw ñi te yaakaar naa ne ndaw ñi dégg nañ ko te manifester ko démb ci au soir du 24 mars. Voilà, merci beaucoup. tey jii Pastef Thiamène Kayor lépp loo xam ne ni ñi ngi koy yëkkati muy mobilisation jigéen ñi ñoo ngi ci kanam ñoo fiy jiitu kon may jaajëfal rek suñu jigéen ñi ñoo ngi nii ñoo ngi nee ñoo ngi nee ñooy borom sañse yu rafet yi ñoo jël seen xaalis di xotti di ñëw di floqué ngir bëgg parti bi kon ñu leen di jaajëfal bu baax. ndeysaan ma ci seet kenn nag koo xam ne nii mën naa ne li mu ñuy jariñ ñun fu ñu ko natt rek weesu na mu nekk jigéen bu jàmbaar lool gën ñoo bëgg ñun parti bi chaque jour muy wax di soññee di jël alalam di ci def di jël dooleem di ci def di woo ay mbokk jigéenam ñëpp di leen massifier à ce que ñu ñëw rejoindre li nga xam ne mooy

Enfim.

di fa jaar kenn ku ne di ko jox information ñooñu kon au nom du parti ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi ñëpp. waxal loolu ca kaw. yéen soxna yi xam leen ne ay jii lañu leen gën a soxla ndax suñuy yaay ngeen suñuy bàjjen ngeen suñuy tante ngeen. dëgg la waaye tamit suñuy bokk militant ngeen. kon ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu koy jaajëfale bépp soxna itam. ah ak képp koo xam ne nii population Thiamène nga yeewoo. ci ciy jaajëfal bu baax au nom de ces dames là ndax ñii buñ ne derrière chaque grand homme y a une grande dame ñii ñoo tax vous êtes des grandes dames tey jii wane ngeen ne benn loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk tubéy waaye ñaari loxo mooy takk seen. baar ci yéen kon doon taxaw di takk tey jigéen. ah am na tey am ngeen ko wàll. loolooy dëgg. jërë ngeen jëf ñuy jël kàddu gi di ko jox soxna Fatou Diatara. billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil mu may ñu bis bii ku ne di xeex ku ne di dañ dañ ku ne di tiit ku ne di jàq ñu ñaan ba tey mu may ñu ko kon dañuy sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sant Seexul khadim sante sun ñaari waajur sante sun borom kër ndax gannaaw yalla parti passé bu ma si duggee sama borom kër tierna mbeng moma ci taxa duggu ak Aram sek ak Lamine sek fu ma toll tamit dama koy wax su gannaaw su lu luduwee ya, nak ma ngi nuyu ci amen ak liko war ndax suma ma rek duma duma duma matal te bëgguma bàyyi ya, kenn ndax gis na sen taxaway ci amen ak liko war ñepp taxaw comme ni ko xale yi waxe mbacc ni kon yal na yàlla dooli jàmm dooli ñu xéewal te li nga xam ne moom lañ séen ci projet bi ba ñëpp ànd ci topp ko muy Ousmane Sonko mu wane dëgg ak njub ak leeral ak jub ak jubal ba tax ñëpp topp ko kilifa yeeg ñëpp topp ko kon loolu noonu yàlla ci yàlla dimbale yàlla may ñu taxawaay bu dëgër boo xam ne bii may ñu xel yu dal ak xol yu yaatu yuñ ko mën a liggéeyee ba kenn du ne accam suñu jaalee tamit may nuyu Cheikh Gueye mën naa ne sama càmmiñ la sama lépp la Guèye mii bëtu Ousmane Sonko rek laa koy xoolee ndax taxawaay boobu la taxawee yar boobu la wane ngor boobu la wane doylu boobu la wane oyof boobu la wane waaw su loolu jàllee ma nuyu Aliou Khoudia Fall sama doom man xale yi ñëpp ndax su ma liwee damay desal kenn te man ñoom ñëpp laa jur billaahi wallaahi taala ni ma juree Mor Mbeng si sama biir bi noonu laa leen juree ci sama xol ndax dañoo am yar ami teggin te gone nag su amee yar ami teggin lu mu am rek moo ko may boppam. loolu kon ñëpp lay ñaanal jàmm ndax man suñu daan campagne rek dama leen di xool dama leen di yërëm dama leen di ñewet yi kon yal na yàlla dooli jàmm te dooli ñuy xéewal. beneen bi ci desit ñi ko xale yi waxee ah, liggéey baa ngi door a commencé muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ak fu waay mën a nekk ci caameen ak ci Sénégal gi yëpp ndax liggéey baa ngi door a commencé surtout caameen ndax amna lenen leneen lu war amna na leneen lu bëgg ëlëk insha allah rabbi ba lepp mana mëna yëm di sant mbay Sall bu ndax té dañu wax ne and xalé da cey am jigen da cey am mag da cey am ndax ku ci nekk rek am nga fo mané ndax su déné ne affaire euh, loo xam ne lu carton di wara def la car sha allah xalé moko wara mëna def waye bu dé luñu la bu dé mag ñu am xel la ñu man da lay soxla mak pour mu xelal kon nag ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di wax Mbaye Sall mais comme ni ñu waxee woon ndaxte gis ngeen forage bii. bañ ko waa bañ ko bañ ko bañ ko yoreeg léegi. Ah. car macha allah ndax kenn rootaaneetu. te mm. loolu yaakaar naa ne ay xale ko yor. te fayewuñ ko dañoo am fulla am fayda am pëccet kon yaakaar naa ne bu bu demoon ba leneen ñu dox seen loxo kon caameen dana avancé kon yal leen yàlla jàppale ba leneen li ñuy séenu yàlla may ci ndam. ba loola caameen ngeen gën koo mën a développé di nuyu Ibrahima Thiam nga xam ne moom Mouhamed Sagna laa koy xoole moom Guy mari Sagna waaye dafa tuub ñu koy wax Mouhamed Sagna man loolu la foofu laay xoole a Thiam ndax taxawaay boobu la am Guy Marius Sagna ku ne gis na ko taxawaay ak engagement am ci ci ci ci Ousmane yi nag dana gudd ndax li ma bëgg a wax lépp mënu ma ko wax ndax sama xol dafa sedd ndax man aw ma solo as ndongo su xeebu rek laa waaye nag ne bii xëy na egguma fa moo tax lu ma man ak lu ma mun lépp danaa jéem pour lu baax yaatal pour ngeen am ndam te billaay walaay taala barke Seydina Mohamed ndam rek ngeen di am ca kaw ca kanam billaay walaay taala ci weeru koor laa nekk maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di wax ne eh, comme ni ko kii waxee woon eh, kii sëy mii Demba li nga wax loolu man wax naa ko Cheikh Gueye nee ko nit am na ñoo xam ne lu yëg rek moo moo moo moo am solo ci ñu lu yëg rek lañ bëgg yëg ku kon nit waa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen euh, tatagal si weer bi nga xam ne si lañ nekk muy sahru Ramadan Mubarak di jiital ci nuyoo bi nag euh, le coordinateur euh, Ali Khoudia ak mboolem ñi nga xamante ne ni ñoom la àndal si liggéey bi muy Pastef Thiamène ndax ku ne xam ne Pastef moom. nekk patriote fii ci Sénégal risque la donc kon bu ngeen ko jëlee noonu ngeen ànd ci ci liggéey ba tey ngeen am victoire bu rafet bii ci biir Thiamène duñu am lu dul di leen kontaane te di leen encourager ndax xam naa ne kontaan ngeen mais euh, euh, défi bi ñu war a relever dafa bari ndax li yàqu ci réew mi dafa bari li yàqu Thiamène dafa bari te. li fi war a am te amu fi yaakaar naa jeunes yi ñoo fi war a indi donc kon engagement boobu ngeen jël ak liggéey bu rafet boobu ngeen liggéey dañ leen ciy félicité rek di nuyu également sama at adjoint ko ab Ousseynou Aaj ak euh, Ousseynou Diagne mi nga xam ne nii euh, ànd nañ ñëw fii Thiamène ngir bokk ak yéen mbégte mi ndax ku ne xam na ne même Koki la même chose moo fa am ndax euh, metti woon na torop man mi ngeen di waxal nii je suis le de la JPS tudd El Hadj Mor ñu gën maa xam si As Gueye yaakaar naa bokk naa si ñi nga xam ne ni ko tëjoon nañ ma kaso ngir Ousmane Sonko bokk naa si ñi nga xam ne responsable laa woon ne woon société boo xam ne ni maa ko géré woon si commune bi bi ma jógee kaso dañ ma dàq si liggéey bi ngir Ousmane Sonko kon xam ngeen ne jar na lu ko raw. ba tax na démb bi ñu génnee ci bureau yi de vote yi bi ñu demee élection ba pare bi résultat yi génne sept bureau yi nekk yépp Koki dama leen koo gagné te ku ne xam ne Koki l'aide camp du président de la république mooy euh, le général euh, Sélé Maïssa Ndiaye fa la dëkk ak réalisation yi ñu fa def yépp n'empêche que askan wi dañoo euh, buumu jaameel gi nga xam ne moom lañ takkoon seen baat dañ koo dagg tey bu ma ñëwee caameen moom laa gis donc kon cant gi ak ngërëm gi kon yéen yéen a ko moom mais nag du ñu bàyyi du ñu bàyyi ndax Sénégal rek moo ñu ñor te dinañ ko defar lépp loo xam ne am réew am na ko ci àdduna bi ñun am nañ lu ko raw donc li ñu amul woon mooy njiit yu baax donc kon jeunes yi ngeen gis nii ñii ñu nekk à travers ñu nekk à côté du coordinateur ñii ñooy caameen ñii ñoo bëgg caameen

alxuraanu karim pour toog mairie da ngaa xeex lii maa saafara wax ji jeex yaa fi sant di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di wax alhamdulilahi rabil alamina alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp tey lu mobilisation bi. a ah. tey de vraiment daanaa kontaan mais tey moo ci raw ndax ku ne xam ne ne fii ci Thiamène Pastef wala boog man Ndiassé moom lay noyee moom lay dunde dëgg la dama ne ragal péete day xañee wërsëg te billaahi wallaahi li may wax ah. bu fekkee nekkul ci man sama njaboot yàlla buñ ma jariñ ndeysaan Cheikh Gueye Cheikh Gueye Cheikh jàkkaarloo ak man Ndiassé Ndiaye wax ak moom Cheikh xool ma bu baax Cheikh liggéey bi day soog a door dafa am lu grand demba wax muy loo am solo léggéey bi day soog a door dama bëgg ñu futtiku dëgg dugg ci doomu aadama yi ah. parce que dafa am ñu bare ne ñun xamuñu Cheikh waaye Ndiassé bu lay topp tey bu ñuy topp Cheikh Gueye Ndiassé yow yaa tax loolu du ay nax lu wér la tey may sagoo nag sama koñ bee ma dëkk muy sakkal vraiment dinaa ci cité nag ku ñuy wax Soxna Ndiaye yaakaar naa tey moom ak Fatou Diouf ak euh, jay Sall ñom ñoo fa nekkal jigéen ña. te wallahi alazim kéro gaay yi fi ñew ah. ci guddi gi ñoom ñëpp ak mom mobiliser wu ku ne ne xam ngeen carte wi keur gën duggu xam nañu wax ñun xam nañ borom sikkin bi jëru sax présenté mais vraiment lool dafa neex kon Cheikh man Ndiassé li may wax ragal pété day xañ a Cheikh gey tay la Cheikh gey suba la Cheikh gey gënaaw suba la loolu wër la ci man billaahi Cheikh sol naa tisetu Pastef yaakaar naa bi ma koy sol vingt 2021 la woon ba léegi ah wallaahi am na koo xam ne ñëw na ba sama buntu place gaare atom ne ma Ndiassé xam naa fii nga féetee ma ne ko sëñ biir ragal féete day xañee wërsëg man Pastef 100 pour cent la te li ma koy wax waxee nag dafa am fu ma ko teg parce que am na sama jarbaat bu ñuy wax tey jaw fara Modou Jaw yaakaar naa xam ngeen ko ah. li sos Pastef ci la bokk dëgg la ma ne nit bu jëfee danga koy da koy sant dëgg la Aline Fall Galaar xaritu Modou Jaw benn bakkan la ñoo daan ànd ba bëccëg man su ma duggee Pastef Modou moo ci dugal suma jarbaat la maa ko yar te ku gëm Pastef Pastef la léegi la ma woo ne ma sax kontaan naa ci mobilisation bi ngeen def kon yéen jeunesse su Thiamène dama leen di woo fii Cheikh Gueye moo fi nekk man loolu laa gëm li may wax laqatuwuma ci nëbbatuwuma ci Cheikh Gueye laa gëm man jaasey ku ànd ak moom ma ànd ak moom ku ànd moom moom lay àndal te li ci kanam rawti bët liñ lay wax incha allahu rabi dañ ko gis yàlla yàlla suñu borom dool ñu jàmm maa ngi sant nag sàkkal gi nga xamante ni fi laay yeewoo di leen sant bu baax a baax di xool seen mobilisation macha allah jërë ngeen jëf yéen waa Thiamène ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen baal ak di leen baal wa ak di waxee nag kontaan rek xëy na nag kàddu yi ngeen ko ci diggante ah, mu ngi yëpp ay kàddu yi ngeen kilifa yi di ko déglu wax dëgg yàlla di remercier ñi ma àndaloon ci waar yi wax dëgg yàlla waaw caame moom sa kanam rek ndax li kiy wax metti woon na loolu waaye fu metti woon rek tey sedd na fu fi metti woon rek tey sedd na kuy ñu fas yéene ànd ak suñ président Bassirou Diomaye Faye ak suñ président Ousmane Sonko fas yéene ànd suñ monsieur le maire Cheikh rabbi fi ñu toll ni ko ñëpp waxee liggéey baa ngi soog commencé suba jàmm incha allahu rabbi lañ fas yéene commencé campagne yi di nangu suñ maire bi jox ko xale yu ndaw yi ñu liggéey dëkk bi ñëpp gis seen bopp. ñun ñi nekk ci maire bi xam nañ ci ku bëri ndax maire bi ku am nay ak ku ma nay moo fi am li ma wax Ibrahima Thiam xam na ci lu bëree bëri ñun ñoo ko teewal ko seef ci biir maire bi waaye ñun mënuñu faa dogal dara mënuñu faa wax tamit mu jàll ndaxte ñun doon faa néew. lañ ñoom lañ fay wax seen yoon moo fay compte seen yoon moo koy jàll. am na li ñuy wax lu ñuy def sax si dëkk bi da dem ba gis ko teg ci sa bët waaye kenn du ko wax ca meeri ba kon ñun ne dañ faa nekkandi rek waaye nekkuñu ay ndaw yu teg ca biir mairie ba yoo xam ne ñun mën nañoo jëlee dara di ko dugal ci biir askan wi na leer naññ ci biir askan wi. Ibrahima Thiam mi chaque jour dana Ibrahima Thiam dina xeex amul bis bu ma dul wax ne Ibrahima Thiam dina xeex mu nekk jàmbaari joo xamante ne Pastef rek ko ko nit koo xam ne du kuy jënd mu nekk nit koo xam ne xaalis jënd ko mu nekk nit koo xamante bis bu set dañ koy wan loo xamante ne Ibrahima xoolu loolu ñun ñëw fi may ñu 3 millions Ibrahima Thiam woo ma ne ma na ko amul waa Pastef ku lekk ci xaalis bi ñun xaalis jamuñu xam nga ñun lan lañ am fulla fayda ak ngor moom lañ ànd lépp bañ commencé ba tay ci fulla ak fayda ak ngor ñun ci lañ ànd li ngeen wax na ragal péete day xañ a ñun fi nekk lañ fay nekk te ragaluñ fi dara ñun dañ na fàng ñun añ lañ tegg lañ sotti ñun ragaluñ dara amul lenn lu ñu ragal inshallah rabbi comme li ñu defee Bassirou Diomaye Faye ñu fas yéene ànd ak moom salaamaaleykum bàkk bi neex na lol ndax man maa ngi tuddee sama baye fa lo maam Cheikh Ahmadou Kabir kon ñoo ngi ziaré waa Thiamène gépp dañuy parafitoo rek jëm ci kàddu bi ndax temps bi daf ñoo xoj dëddula waaye dama leen waxoon bi ñuy campagne dafa am promotion bu ma leen doon jaay muy Bassirou Diomaye Faye ngeen di jënd am Ousmane Sonko yaakaar naa jar na boobu promotion moom jar na waaye Thiamène jënd nañ ko dèjà waaye am na beneen promotion boo xam ne bu may jeexal kàddu naa leen wax beneen promotion bi may jaayaat ci kanam incha allah boobu waaw danaa ci ñëw léegi waaw ñuy ziare ñëpp rek di jox ñëpp cër waaw mënoon nañ fi bañ a jël kàddu ndax daanaka ñu ci bëri matare nan waaye nag dafa am loo xam ne dañ ko nemmeeku biir Thiamène ci at yi ñu passé muy ay xale yoo xam ne dañoo taxaw bëgg a dindi Thiamène ci guuta te xale yooyu mu ñëw dindi Thiamène ci guuta te fekkul ne mag ñi ñoon ci jàppale te lii ma gis Thiamène ci élection yi jàll dafa mel ne caameen am na beneen xar kanam bu bu taxaw. dëgg la nag incha ci yoonu yokkute ak yoonu jóge ci jafe ji jox yi nekk. ja gone yooyu nag dama leen a ràññee ci yu baree baree bare ndax bi nga xam ne si ndox mii dafay am jafe-jafe dañoo taxaw muy ay jeunes yoo xam ne mën nañ ci tudd ay tur xëy na mën naa am ñu am ñoo xam dañ leen fàtte. waaye dañ ci jëlee ku mel ne Abdoulaye Diallo ak kii ci ñi suñu wet muy ki nga xam mooy Talla ak Souleymane mbay ak ki nga xam mooy Matar Dieng ak ñi ci àndal ak ñëpp ñu taxaw booba mu metti loolu ñu xeex xeex xeex xeex xeex fu ne ñu xeex fa ñi fi woon di leen xeex ñu rayante ba jël ndox mi ci loxo yi nekkoon waaye ñoom soxlawul dara ci ndox bi dañoo xool ñi nga xam ne ñoo ko mën a doxal ñu jox leen ko ba pare ànd ceeg ñoom di leen gunge te ñooñu laa gisaat ndax man kenn wo mo passé man ma bëggal sama bopp Ousmane Sonko ndax dama ko top di ko xool ba xamné ne dëgg rek nek ci mom ma top ko ndax dëgg ndax man duma top kenn ndax yaa ma neex bi loolu amé ma dikk biir Thiamène encore xol ñi ci amé ñi fi taxawal passé ma gis ci ñoom dëgg mu melne ne ku melne Cheikh Gueye ak gone yi ko dar ma ñew taxaw ci seen ginaaw mu jaral ma lu ne ndax passé nek na parti bo xam parti bu nakare wona andal la ndax ku ne xam ne jafe-jafe yi bari woon na lool muy parti boo xam ne parti fu ne dóor nañ ko lu ne def nañ ko ko kon ñi ko àndal dëgg moo tax ñu ànd moom kon waa Thiamène li xew démb Cheikh Gueye mii mënu ko mënuma ko ndax ñun mëtuñu vingt personnes bu fekkoon ñi ñooy dugg ca urne di vote rek yaakaar naa lii am kon yéen waa Thiamène yéen a ko def leneen lii ñëw tamit yéen a koy def ndax Thiamène buñ bëgg buñ bëggee mu jóge fii mu nekk faaw ñu changé xar kanam bañ a dox ci ay affaire u mbokkal ay affaire u xarta yu kenn xamul nañ dox ci dëgg ndax seex mi dama koo seetlu damaa ànd ak moom mais dama koo seetlu damay seetlu dépp sama saar gi nga xam ne dañuy def dañuy départ dañuy dépalaana dañuy dañuy plané rek ñoom léeg-léeg dañu def départ rek borne yi def lu neex waaye suñ bëggee dépassé borne yi rek mu taxawaat ñi daan ñu ah déet man ci dëgg laay dox ci ful laay dox ci fayda laay dox man du ma xeex loo xam ne insistance la pare ma gis ko koy def ba ci keroog bi nga xam ne ñoo ngi def suñ mutin bu mucc ñoo xam ne minuit lañu waroon a arrêté biñ ko nar a dépassé daf ne kenn du ko dépassé foofu la yem kon kooku dëgg rek ko ñor kon seex bi dama bëgg ngeen xam ne man topp ma ko ndax daf maa neex dama ko topp ndax nit ku dëgg la loolu laa gis si moom ba ma ko xamee yàggul waaye xam naa nit ku dëgg la comme niñ ko waxee nag ñu gis suñu wet ku mel ne Moustapha Mbaye ñooñu nga xam si dëgg rek lañ yàgg a xeex buñ leen gisee ñëw suñu yaay soor xel day gën a daal mais li ma leen a xamal daal mooy caameen yéen a mën a jóge ci guuta gi ngeen nekk yéen a ci seen bopp du kenn leen ciy jëlee du man du kat luñ bëgg ñun danañ xeex liñ man comme ni ko Ousmane Sonko defee rey na boobu xeex na mais à li ci mujj mooy sénégalais ñoo yor kàddu gi te jox nañ ko ko ñun nag caameen luñ mën danañ ko def incha xam ne na ngeen yeew na jar seen i bët xàmmee ñi nga xam ne dañuy sangoo deru bukki bëy de sangoo deru bukki nga xam ne moom seen intérêt dong moo leen ñor kon ñoo ngi ziare ñëpp di jox ñëpp te gàddal kàddu gi joxaat rek xam nga ñu eggale programme bi bëggoon nañ mu gën a xam nga dafa am yoo xam ne si mënut a waaye lépp matale na lépp lépp lépp xale yi matale na waaye dafa am loo xam ne si mënut a sànni muy kan Alioune Khoudia Fall dafa yar waaye mën nañ am na yar te suñ ko waxee fu mbokk da ngeen ko xam. dëgg la Alioune Khoudia mooy papaam ki ñuy wax Baran Ransi li may papaam Bara Fall Bara may papaam Atoumane Fall muy sunu maam te kër nay nag kër nay kër nayam fan la Faty mooy yaayam Faty Gueye kan mooy baayam Djibril Gueye Faty Gueye mooy yaayam mag kii naw sëri te yi nekk ñu am njom ñu am ñu am diine ak jom jam fit dafa am lu ci wax rek ñun fi ñu toll nii fi ñu toll nii amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy tiit départ bi fu mu départ woon benn la commencé ñu def benn ñaari ñett ba tey jii nga am yaakaar amul kenn kenn kenn kenn ku mën a ñëw fii pour jël ko ci loxoy coordinateur bi muy Aliou Fall ak sunu monsieur le maire bi Cheikh Gueye booy jàng dina wax fii képp ku am parrain xam ne parrain ay ragal dëkk ñu fa su laajee xeex yi parce que temps bi xoj te bëgg wax di jël temps may vraiment Cheikh Gueye mu jël fi kàddu parce que kàddam moo gën am solo sama kàddu loolu loolu laa gëm man tout d'abord damay remercier vraiment ñu fi nekk ñëpp waa Thiamène gépp maa leen di sant di leen di gërëm di leen di xamal que ne cheikh Thiamène Kayor ñi ma si àndal mais ndaw ñi ñëpp aw sen fay a commençant par Ibrahima Thiam Modou jaw surtout duma ko faté parce que man man na wax né bañuy démarrer ñun la won ce sont des militants de première heure donc dinaa leen si remercier bu baax sama grand yi sama wet dama wax cameraman bi mu jël len rek parce que bu ma see tudd kenn ñi nek sama ginnaw ñëpp fi ma tollu tay ak fi ma ex tay c'est grâce à ñom ñi mënu ma len fay waaw donc comme ni mu ko waxee rek ñun ay ndaw lañ te lu ñuy intéressé mooy développement Thiamène te yaakaar naa lépp lu ñu war a mën a def ba Thiamène développé danañ si xaar suñu tàngu tubéy bu laajee sacrifice danañ ko def bu laajee tayle suñu bakkan danañ ko def parce que Thiamène moo ñu ko jaral damay sant sama sama yaay yi nga xam si vraiment à chaque fois dama naan man lan laa def wa dan laa defal waa Thiamène man dama jàpp ne sama jëmm xewu parce que fu ma tourné rek ñu ngi may sant di may ñaanal te ñaan yooy noonu vraiment kawe na lool si man te sama jëmm ju xeebu jii peut-être ma leen dara ma joxu ma leen xaalis joxu leen leen mais ñoom ñoo bëggal seen bopp maa ngi leen si remercier bu baax sama yaay Fatou Diatara ñoom Anta Fall ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm discours bi nag fu ma fu ma koy fu ma koy jeexalee mooy ñun waa Thiamène ñun ndaw ñi nañu booloo man ko nekk benn su ma waxee commune dama siy boole village environnement yi muy Mokh Mokh Géni Bel Daaru Mbay Sange village environnement yëpp nañ xam ne ñun ndaw ñii caagar gi pour mu changer ñun ñoo ko mën a changer te lu ñu koy may moo ñu réconcilier suñu ay forces travailler de manière euh, dans une parfaite synergie parce que suñu doole rek moo ñuy may moo ñuy permettre vraiment lu fi nekk ñu jëlee ko fi. te yaakaar naa am ay échéances fi ñew bu élection élection locale jàll nañ ci élection présidentielle té yaakaar naa def eh, nañ ci ay résultats yi extraordinaire élection locale yi di ñew ma nga leen di ñaan surtout ndaw ñi ñi nga xam ci mën gëna gën voté nañ fexé ba am carte électeur parce que lu fi nekk pour ñu changer ko une fois pour ndaw ñi ñepp ku ci nekk ku amagul carte électeur fexal ba nga am carte électeur pour que inshallah rabbi élection locale yi di ñëw si kàttanu yalla ñun ñepp ñu and bolo fal ki nga xam si moom moo nekk suñu leader Cheikh Gueye parce que parce que lu tax ban koy jiital ci coalition Yewwi Askan bi ñun ñoko choisir xamne ki kii jukko yi nekk si moom compétence bu nek si mom xam-xam bu nek si mom yar bu nek si mom warna ah, warna warna wara tax ñu war ko jiital pour mu dimbalé caamen du génnewu ci bu gi mu nek te gëm na né buñ ko tegee ci ay loxoom si kàttanu yalla gëm na né sama caamen dana saage waaw dama naan lu wax dëgg la sama nijaay la de mais lu tax ma topp ko lu tax ma koy jàppale si côté boobu noonu parce que dafa tout simplement discipline bu nekk si moom yar bu nekk si moom compétence bu nekk si moom ak profil bu nekk si moom te gëm naa ne féet benn maire mus fee jaar bu bu ko compétence wala ku ko fi gën a taxaw ku si xam-xam si ak yeneen ak yeneen lépp luy bëgg na bëri na bëri na caanal bii fi dugal si ay projet moom mii loo xam mi ngi si loolu daal vraiment tey boo ñu bàyyi xel Ibrahima Thiam fu may jeexale kër Basile su ma amee fit tey fu ma eggee fu ma egg c'est grâce à moom parce que moom mooy fital moom si boppam moo nekk sama ginnaaw di may jàppale si lu bëree bëri bëri donc mënuma koo fay si côté yëpp donc damay gàttal kàddu yi di jox vraiment ñu continuer programme bi xam naa moom guddi na nit ñi ñu ngi dem mais damay yemale fii kàddu yi bëggoon wax lu gën a lu gën a bëri loolu mais vraiment comme que instant bi temps bi xon nañu donc dama koy yemale foofu maa ngi sant waa Thiamène bi yëpp di leen gërëm di len sante di leen remercier di remercier suñu yaay suñu mam yi suñu papa yi suñu xarit yi suñu yépp di gërëm.

si sant yoy dañ si commencer sun kilifa diine yi nga xamne ci ñi ne fi xeyna na dinañ ci tuddu ñenn ñi ñeneen ñi ñu jéggal ñu parce que dañu gis euh, ñu melni soxna yi soxna Fatou wax deug yalla am taxawayam dafa am solo suñu badjan soda daf ñu soda soda jang wax deug yalla daf ñu jappalé si plan yépp daf ñu may fit aussi ci liggéey bi di remercier bu mel ne Aminata Dieng moom aussi vraiment lépp lu am day day ñëw di ma wax wala may woo téléphone donc ñooñu aussi dañ leen di gërëm yeneen sages yu mel ne doyen Tafa Mbaye Tafa mbay nag dinaa trahir benn secret boo xam ne si xëy na ñu bari xamuñu ko woon ci ci sama diggante ak moom parce que gars yi doyen lañ ko doon wooye je me rappelle bien boobu maa ngi servir am Matam ñu dajee côté Orkadiéré mu né ma yow li ngay def fi war nga ko mëna a jariñ waa Caameen te bis bo taxawé man dina la jappalé ba li nga wara li nga ci nga nga jox si donc lolu bi ñu koy wax matam la te yag na lool donc di sante suñu cousin Aziz kan mom dafa xër donc xol lay doxé da ci japp da nga nan ki mom des fois da lay pousse sax ba nga pour yow dafa ragal da nga ragal quoi ay ñoom doyen Aziz Touré ñom Aziz Fall ñom ñep dal vraiment sen taxaway wa keur Basine keur bu démé ndawen jappone na ci am taxaway bu rafet de doyen biñ fa fekk aussi dàmmay aussi gis nañ taxawayam en tout cas buguma lim ñep Adja Mané gis nañ taxawayam doyen Falilou Ndaw si coalition Yewwi Askan yi lañ nekkoon doyen Falilou Ndaw bu njàmboor parce que kooku aussi nit ko xamné si daf ñuy teg si yoon la parce que des fois da ngay am ay xalaat yo xamné si ñun day xaw compliqué mais mom da non non Cheikh daf leen ni mo gën parce que il est très sage kooku aussi dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam yalla yokk taxawaayam donc les jeunes nak mom xëy duma du leen remercier parce que c'est devoir la ñom ñoko wara def. mais Adama Ndiaye aussi dañ koy remercier bu baax si ci taxawaayam donc doomu Adama yépp dal damay lim nii su bëggul mo ma lim mais su ma limee damay djum ñom ñëpp vraiment faté wuñ kenn wuñ kenn ñom ñëpp sant nañ leen gërëm leen ci seen taxawaay donc la jeunesse xeyna buñ tuddé Cheikh gey yéen ñi yéen tax ñu tuddu ñu ak askanu Thiamène parce que sunon sama jëmm ji kessé kessé kessé kessé ah kenn duñu tuddu parce que liggéey bi fi def. yéen la Aliou yéen la Iba yéen la Saer yéen la Matar yéen ñëpp Mbay Sàll donc c'est les gens yi nga xam ne si seen dërëm ak seen ñaar dërëm la ñuy boole suñ boole woon seen coono seen ba nga dëgg Baye Fall jaajëf donc dafa nekk ñoo xam ne si ne bu fekkoon ne seen doole rek lañ si def ak seen taxawaay donc dañ koy dañ koy ñam mais dañuy jël seen alal di ko si def parce que lépp lu ma def si parti bi ñoom ñi def nañ si lu ko raw parce que ku melni Ibrahima cham par exemple ay réunion dañuy am man lañuy wo wala ñu wo Aliou mais mom moy dem téwol ñu fa Louga téwol nañu ba Dakar Ibrahima dem na ba Cour suprême jour bi ñuy atté verdu Ousmane Sonko bi par rapport ak la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales jour boobu. jour bobu moins cinq Ibrahima ñu arrêté ko te booba dana yàgg si kaso bi mooy génn mais loolu engagement moom ma koy def donc li si des nag mooy Pastef Thiamène Kayor Aliou Khoudia moom moo ko yor mais ñoom ñoo jël seen mbooloo ànd ne ma kaay ñu ànd pour ñu liggéey donc loolu décision boobu si ñoom la ma sœur Penda fàttewuma la aussi nuyu nañ la di nuyu waa Fass ñëpp ak waa Géli fàttewuñ kenn donc ñoom ñoo jël

parce que man des fois aussi si administration là nek des fois man ay contraintes yo xamni ci si meuna ñew mais ñom dañ le grand ñun ñolay lay aar si lépp fo foo foo taxaw te ñun nekkuñu fa ñun ñun danañ la fa taxaw parce que des fois après élection locale yi problème yu ne am nañ ko fu ne woon nañ lu ne wax nañu ko mais liñ gëmoon lañ gëm ànd ci di liggéey mënoon nañ si ñàkk suñu liggéey mais gëm-gëm bi kese yàlla moo tax yàlla jàppale ñu xëy na bañ taxaw fii donc si loolu ñoom ñoo yore Pastef ñoom ñoo si nekk. bi ñu demee ci élection yi démb gis nga représentant bureau de vote yi te lépp li nga xam ci parti bi santoon nañ ko ñoom taxaw nañ ci ci loolu aussi dañ ciy sant suñu frère mbësu ñu gën koo xam ci turu Magal Ndiaye parce que démb ba heure bi ñu ngi këram di def la compilation des données pour mën ko yóbbu Louga benn PV boo xam ne ci bu ngeen voté boo xam ci résultat yi am na fi manqué wul bu caamee ñoom ñoo ko yóbbu bi ñu paree mili man dama dem tëddi mais ñoom ñi Ibrahima Thiam ñoom Aliou Euh, sama jarbaat euh, Ablaye Fall ñoo dem Louga déposé ci dossier yi euh, ba mu egg fa mu war a egg donc tey jii Thiamène bu ñuy compiler dans la plateforme résultat yi Thiamène ma nga fa danañ xam ne Thiamène bokk na si ñi nga xam ne si ñoo gagné élection yi donc liggéey boobu suñu amul woon taxawaay boobu suñu amul woon équipe boobu ñu nekk si bureau de vote yi metti woon na trop ay jigéen bàyyi seen liggéey bàyyi seen kër bàyyi seen lépp dem taxawal ñu ci biir yooyu bu mën ñu indil ay procès verbal bari na parti yi fi nekk yoo xam ne si si ñun lañu amee procès verbal donc ñooñu dañ leen di sant bu baax si taxawaay boobu di rafetlu seen liggéey beneen bi aussi résultat bi aussi dafa am aussi lu mu si def donc ñooñu aussi dañ leen di sant ku mel ne Mame Cheikh dafa bàyyi ay matériel am bépp ñun la ko jox ay otoom fii lu ne ndox mi dañuy naan lu ne la ñuy def donc kooku aussi taxawaayam waa PDS yi dañ leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier aussi suñu DJ bii nga xam ne si vraiment macha allah. man nañ ne suñ njiglaay lañ ñoo ko indi woon fii si coalition Yewwi Askan Wi indiwaat nañ ko fi tey ànd ak moom te yaakaar nañ ne bu élection locale yi ñëwee dinañ si ànd li si des nag mooy si feneen lañ jëm li ko njaase wax na ko nee na dañ maa sas wala dañ ñoo sas parce que liggéey bi moo ngi dam tàmbali doo ko tàmbali njaase vraiment li nga wax loolu dafa am solo parce que loolu buñ ko xamee fañ jëm day yomb lii moo gën a ndaw pour man ci li ñu li ñuy def yàlla def na suñu partie parti moo yore réew mi mais élection locale yi bu ñu àndul nekk benn bokk benn xalaat ànd di liggéeyandoo ànd di dóorandoo dina metti trop parce que élection yi am na jàngat yu ñu ci def ñun aussi parce que am na résultat yi ni mu demee boo ko xoolee xëy na ñu bari duñ ko xam dañoo gàññe nii rek mais bi ñu toogee ñun ba koy jàngat am na lu bari loo xam ne si gis nañ ko ci biir te loolu bu ñu deful attention dina mettiwaat ak ñun moo tax li mu wax dëgg il faut que nous tambali té sas nañ té ñun liñ gëm ci loolu lañu dox moy comme li parti bi wax comme li programme bi ñu nekk wax muy ñetti ñetti cadre yoy nga xam ne dama ko gëm man sama en quelque sorte livre de chevet mbay ci loolu lay laay dox moy jub ak jubal ak jubbanti dëkk bi dëng na dañ ko wara a mais kiko wara war nak bu jubul mënu ko jubbanti donc nous sommes obligés nous sommes obligés di doxal justice parce que mu ñu fi nekk ay at nag ñu naan ñu li ñu teg du yoon li ñu teg du yoon li ñu teg yoon ñu xëy suba yàlla jox ñu nguur gi ñun tamit ñuy def la nga xam ne si du yoon loolu kenn waru koo mën a xalaat te maa ngay wax sànq Iba ne ma loolu moom si benn doomu aadama mënu koo jëmloo foo xam ne si du loo xam ne si du jub la donc ci loolu il faut ñu àndaat takku taxaw liggéey liggéey bi tey la tàmbali fii ba élection di ñëw bon xëy na dina am ay paramètres yu bëri dinañ ko jël en xëy na ñëwagul administration am na lu muy doxee am na yeneen ak yenen xeyna mi ngi ñew mais loolu aussi dinañ ko jël en compte pour man man man a mën fañ jëm vraiment ñu ñu ànd si donc ci loolu dal vraiment la leen di woo si appel boobu la leen di laa leen di lay lancé moy manam xeyb ñu dara soxla nañ ñaan soxla nañ ndimbal muy alal soxla nañ taxaway aussi taxaway bi moom jàpp naa am nañ ko paré parce que ces jeunes là sont déterminés sont engagés te gëw ma ne mën nañ leen yóbbu foo xam ne si gë gëmuñu parce que loolu rek moo si am solo ay nit bu ñu àndee muy fukki nit bokk benn gëm-gëm bokk benn gis-gis nga xam ne mënuñu rocc kenn si ñoom mënuñu waxloo kenn loo xam ne si loo gëmul la man gëm naa ne ànd boobu fañ bëgg a dem danañ fa dem te am naa yaakaar si ñi nga xam ne si ñoom ñu lañ lañ àndal donc ci loolu daal vraiment appel boobu laa leen lancé di gën a soññaat jigéen ñi nga xam ne daañu restructuré waat parti bi daañ monté waat ay cellules daañ élargir le bureau ba képp koo xam ne si gis nga si sa bopp nga ñëw mu baña nek affaireu Aliou Khoudia mu baña nek affaireu Cheikh mu nek affaireu parti donc lolu vraiment appel bobu lañ leen lancer di woné suñu disponibilité manam ay nit ñu disponible lañ ñu ouvert lañ donc paré nañ pour and ak ñepp pour ak liguey ak ñepp di remercier aussi vraiment sama suñu gëwël yi tëgg nañ fi tëgg ñu am solo way nañu fi donc lolu aussi dañ leen ci sante mon frère donc njaw wax nañu suñu disponibilité ak ñi nga àndal ñëpp pour pour pour kii

té di leen wax suñu disponibilité ah. vraiment ñun buñ soxlaa nous sommes ouverts ko nañ heure bu ñu invité suñu su féké suñu fu féké wala ñu programme inshallah dinañ ñëw waxtaan ak yeen waxtaan ak askan parce que am aw askan ku ko wara yor war nga mëna wax ak ñom bañ xam yow fan nga jëm ak ñoom waruñu jëm ci ay ay lëndëm lëndëm lu leer lañ wara dox donc loolu aussi ñu leen ci wo di leen sante bu baaxa baaxa baax di leen gërëm di wax ne rek vraiment kàddu yi guddi na diaspora bi wax nga deug diaspora bi vraiment aussi remercier na diaspora moy ñu nekk bitim rew moy ñu nekk Mauritanie ñu nekk euh, France ñu nekk euh, Espagne ak vraiment sant nañ leen gërëm nañ leen di remercier aussi suñu collaborateurs yi moy yenen parti politique yi nga xamni ne si ñoo ku melni wa waa ñom ñoom ñëpp dañoo wo woo nañu vraiment féliciter ñu lool moy modestie bi élection bi résultat yi génne depuis démb si guddi ñoom ñëpp ah, leader yëpp woon nañu vraiment ñaanal ñu te tàllal laa ñu loxo pour ñu ànd vraiment liggéey bi gën a jëm kanam soxna yi vraiment amuñu seen fay sant nañ leen gërëm nañ leen vraiment kàddu yi guddi naa ñu ngi jégalu bu baax a baax dëkk yëpp nag vraiment ku lim juum waa Njaayeen gis nañ campagne bi ni ñu taxaw woon waa Sàkkal gis nañ seen taxawaay waa Bel waa Kër Basin waa paaleen waa Sanc ñoom ñëpp vraiment gis nañ seen taxawaay donc sant nañ ñëpp. étudiants yi aussi dañ leen sant vraiment parce que keroog pour représentant bureau de vote yi dañ leen a woo rek ñu ñëw parce que c'était difficile pour loolu ñu liggéey parce que liggéey bu metti la liggéey bi du du toog nii rek di wax di mobiliser di dem ak ñëw mais taxawaayu bureau de vote yi ñoom aussi dañ ci amoon solo muy enseignants yi ñu mel ne ñoom Tafa Cissé ñoom Iba Ndaw dañoo ñëw vraiment taxawal ñu Mbay Sall nekk di superviser donc fu manqué ñu woote ñoom suñ chauffeurs yi ñoom euh, Pape Daouda Ablaye Fall yóbbu ñu ak euh, comment Mbacke Bari Pambay donc dañu jëlee ay électeurs yóbbu fii ba borom borom sareet yi ñoom ñooñu si ñun lañ bokk ñoom Samba Diaw donc ñooñu aussi ñoom maam góor ñoom ñëpp si ñoom si ñun lañ bokk mais bu ko ren li tax jëluñu sareet yi sax si campagne bi da ngeen koy comprendre parce que campagne bi guddi lañ koy def te loolu ay risque la mun ñoo jël ay sareet di ko dawal donc te loolu aussi loolu kese la mais buñ ko jàppee ni xëy na dañ leen a boddi mais jàpp leen ni ñun si ñun ngeen bokk ñoo bokk li ñu def ñoo bokk bëgg-bëgg bu doon bëccëg la ñoo koy ànd defandoo ko donc sant nañ leen gërëm leen di wax kàddu yi gudd na parce que li ma bëggoon wax tey bisu mbégte la bisu kontante la vraiment bisu di souhaiter encore un joyeux anniversaire à président de la république di ko ñaanal yàlla suñu borom yaakaar ji nit ñi am si moom ba fal ko yàlla suñu borom defal ko ko ba mu antu parce que loolu aussi rek lañ koy laaj parce que réew mi métti na méttiwaay boo xam ne si te toll nañ si actuellement foo xam ne si. population bi mënatuñoo xaar kenn naan li ak lii fii ku fi falu liggéey lañ la sant boo liggéeyul nit ñi danañ wax ak yow kenn moomul kenn kenn yëliful fii kenn ci côté boobu donc vraiment dañ koy ñaanal te ñu jàppale ko ñun tamit aussi ñu ànd gën a nekkaat benn gën a liggéey vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp yaakaar naa fàttewuma kenn donc remercier ñëpp waa ñu joxantee rendez-vous incha allah demain. xanaa nga remercier ñu première dame mi ñuy toppatoo ci ndogu yi. bon première dame moom loolu c'est une c'est donc donc première dame yi nee nañu remercier nañu donc euh, waa ci ndogu yi donc loolu taxawaayam la daf ko war a def ko donc euh, ah. waaw remercier nañ première dame kon nee nañ si ndogo yi ah yu doon indi quoi donc vraiment remercier nañ ñëpp sant nañ ñëpp vraiment daal ku ma limul daal vraiment dama xëy na rek di demee la. donc ñu leen sant leen gërëm wasalaam ndeysaan ndeysaan waa paale na ndax bi ma ñibbisee jógee Louga ah nekk fi yor équipe bi di tëgg loolay dëgg Assa Dieng nekk fi ah am moomu daan woo ak Aminata Dieng ndeysaan kon ñooñu su ma ñëwee su ma leen fekkee ci biir il faut ma wax waa paale fu nu fekkee ci ñàkk a def ci waa Paaleen waa Nderi loolu ne la ko bu doole